Isabelle Sambou ñu ngi lay nuyu. Euh, Elisabeth maa lay fay. may fàttali suñuy auditeurs yi ne moom la ñu tabb bu yàggul ci boppu lutte olympique doon tamit euh, lu bëri yoon championne d'Afrique ci bi lépp discipline euh, tey Isabelle ñu bëggoon rek nga xaymal ñu équipe CNG bu fi nekkoon euh, nan nga évaluer seen liggéey gi ñu fi jot a def. Euh, Elisabeth euh, li équipe bu fi nekkoon lu may xaymaay seen liggéey rafetul rek rafetul parce que euh, ñoom ñoo yoroon liggéey bi te liggéey nañ ko ak ngor liggéey nañ ko ak jom te réussir nañu pour man liggéey nañ ko réussir nañu parce que ki fi nekkoon comme président non non moo nekkoon sama président bu ma doon compétir mhm. te mooy sama président ba bu may bàyyi bëre donc euh, damay ne ngàcc ngaalaama ngàcc ngaalaama chapeau à eux parce que luñ doon séntu ci ñoom def nañ ko comme ni mu waree ba bu ñuy d' accord tey mu am équipe bu bees bi nga yaa ngi ci biir muy équipe bu bi euh, jamono mm-hmm. ji nga xam ne làmb ji am na jafe-jafe yu bari euh, tey mm-hmm. lan moo doon lu njëkk li ngeen war taxaw ci moom. bon làmb ji dëgg la am na jafe-jafe bu bari euh, dafa laaj liggéey aussi mais pour man dama ne lutte olympique bi. jar naa gëstu jar naa gëstu lu bëre jar naa gëstu lu bëre donc euh, lu ci bëre maanaam euh, parce que euh, lutte bi daal dafa dafa dafa ëmb maanaam genre de lutte yi yëpp mm-hmm. donc xam naa ne bu ñu demee ba ba ñu toog ñu tàmbali suñuy liggéey incha allah dinañu mën a xam la ñuy commencé ak nu ñuy def incha tey dañuy ne bëre d'or wax tamit bëre olympique lan moo wutale ñaar yooyu. bon bëre olympique euh, maanaam dafa nekk loo xamante ne ñu bëri xamuñu ko ci Sénégal mais dafa nekk loo xamante ne euh, dafa dafa maanaam dafa law ci monde bi ci ci àdduna si. Mm-hmm. dafa law ci àdduna si. Mm, dafa doon loo xamante ne soo koy def dafay da ngay maanaam da yëkkati di yóbbu sa raayu réew mm-hmm. yëkkati sa drapeau réew lu neex la lu lu lu mbégte la daal pour bépp sportif mm-hmm. donc euh, loolu moo leen utale en tant que lutte euh, traditionnelle bi maanaam avec frappe dafa nekk lutte boo xamante ne fii la yem ci Sénégal mhm. suñu cosaan la mhm. laa mën a wax suñu cosaan la euh, parce que mm, bëgg nañ ko fii ci Sénégal te xam nañ ko fii Sénégal te am nañ ci ay mbër yu xarañ trop te am nañ ci ay champion ay champion champion champion mhm. mais euh, différence bi dafa doon bii fii Sénégal rek la yem bi dafa dem ba ci monde bi yëpp. Mhm, dafa ji en Af en Afrique ak monde bi yëpp loolu rek moo leen utale. Mhm. tey ñu tabb la ci bopp boobu nga xam ne jéggi na suñuy frontière euh, mhm. lan moo war doon sa taxawaay lan mooy sa feuille de route bi nga xam ne nam nga koo amal ci lutte olympique bi. maanaam. lan mooy sa mbébét loo nam ci lutte olympique bi. waaw loolu ma nam ci lutte olympique bi c'est juste euh, mooy mm, liggéey bu ñu war tàmbali. Mm-hmm. Euh, dañu war a def euh, loo xamante ne lutte bi daal dinañ ko dinañ ko ràññee fii ci Sénégal surtout nañ ko fi ràññee ci Sénégal surtout te mm, ba pare mu doon loo xamante ne dinañ ci am ay ay xale yu xarañ. Mm-hmm. ay xale yi nga dinañu def lu. lu ëpp lu Isabelle doon def. Mhm. ndax ràññee googu bokk na ci championnat yi nga xam ne euh, digguñu ko benn yoon ci Sénégal. waaw waaw bokk na si dina euh, te xam naa ne bu yàlla dina mën a am. Mhm. waaw dina ñëw mën a am ne bokk na ci loo xamante ne amul woon fii si championnat daawul am ay championnat de lutte fii ci Sénégal moo tax man pour man loolu moo tax xëj na euh, ñu bëri xamuñu ko. Mhm. te am na ñi nga xamante ne bëgg nañ def euh, peut-être mënoon nañ ko def mais mënuñu ko def parce que xamuñu ko. loolu mhm. mhm. la sportif euh, jigéen ñi fii ci Sénégal te tey ndax dafa am tamit benn taxawaay bi nga xam ne bëgg nga koo def ci leng yooyu ñu la jox ngir nga woo jigéen ñi ñu gën a pratiquer lii di lutte olympique bi. bien sûr bien sûr Euh, parce que euh, loolu laa la doon wax sànq bu ma gisee ñu bëri xëj na defuñu ko dafa defe ne dafa fekk xëj na xamuñu ko hmm. mais je pense que bu ñu demee ba ñu xam ko dinañu intéressé wu pour mu ñëw laajte nu mu demee c'est juste dama leen di ne euh, lutte dafa mel nii comme sport yi daa nii comme judo daa mel nii comme karaté c'est juste peut-être dafa doon loo xamante ne euh, xamuñu ko bu baax fii ci suñu réew mi moo tax euh, ñu bëri mais dafa am ñi nga xamante ne xëy na euh, soo koy def dañ lay naan da ngay mel ni góor da ngay mel ni non loolu yëpp amu ci mm-hmm. waaw parce que jigéen booy def sport da ngay def sport parce que da nga ko bëgg donc maa ngi leen di encourager ñoom pour ñu def sport bi di la lutte Euh, bu ñu defee ne ndax boo defee lit leneen la waaw mais xam naa ne bu ñu demee ba ñu xam ko incha allah dina am ñi nga xamante ne ci intéressé wu. xanaa dafa am loo dund lu mel noonu parce que wax nga ko ci say biir wax euh, dafa bëri liñ leen di en fait stigmatiser laa ko mën a waxee. waaw waaw euh, bien sûr dafa am loo ci dund lu mel noonu. bien sûr daa dafa am na lu ma ci lu mel noonu. mooy mais seulement euh, mooy maanaam dañ leen ne da mel ni ko da ngay xaw ma parce que loolu sport góor la loolu. kii la daal te du loolu fa mel ni comme sport yëpp booy def booy def euh, judo mm-hmm. góor yi ñu ngi def judo jigéen ñi ñu ngi def judo booy def karaté jigéen ñi ñu ngi def karaté góor yi ñu ngi def karaté donc amul loo xamante ne lu ñuy ne li liggéey góor la euh, jigéen mënu koo def non sport la comme sport yëpp la d' accord nga dëkk mu lomp xam nañ ne Casamance bëre bi développé na fa loolu ndax yow mi euh, Isabelle am nga benn programme bi nga xam ne di nga ko jébbal Casamance. waaw bien sûr dina am incha allah rabi. Hmm. parce que bokk na euh, si euh, région yi te Casamance seen bëre bi dafa xaw xayma ak bëre olympique bi ñuy def ni may wax ni ak yow. donc euh, pourquoi pas. wax nga ko sànq fas yéene ngeen tamit wàcc ci euh, yenn goxaan waaw te fas yéene nañu wàcc tamit ci yeneen gox goxaan yi mhm. ñu xamal leen ko ko comme ça ñu a am ay jéego yi nga xamante ne dinañ ko def mhm. champion d'Afrique comme ni ma ko waxee eh, jot ngaa jël ay raaya yu bëri eh, tey ñu doon waajal jeu olympique 2022 ñu puusaat ko ba 2026 ndax Sénégal moo ngi defaraat taxawaayam ngir mën a bokk ci yooyu la jongante waaw ñu ngi defaral eh, loo xamante ne bu bés ba jotee incha allah dinañu am ay jéego yu war a taxawal si boobu jongante maanaam maanaam ñu ngi defaral ay xale yi nga xamante ne Euh, bu bës ba jotee euh, dinañu mën a représenter suñu réew dinañu mën a maanaam euh, yëkkati suñu raayu mm-hmm. ndax wàllum infrastructure yooyu. amoon na mm-hmm. fii ci Sénégal assez ngir mën leen jox temps ngeen préparé wu. bon yaakaar naa ko yaakaar naa ko parce que ñu ngi comme ñu ngi doog a commencé liggéey bi. Euh, duggaguñu ci lu baax mais yaakaar naa ne euh, comme ñoo ñu jox la lenge yi fu mu toll ni euh, dina am loo xamante ne dinañ dinañ ko ci jàppale ba bu ñu mën a ba ñu mën a maanaam naka lañ koy waxee sax ba ñu mën a def suñuy wareef si nit bi waaw. Isabelle Sambou merci beaucoup. merci may fàttali ne yow lañ teg euh, ci bopp lutte olympique fii ci Dakar bokk ci euh, équipe bu bees bu CNG merci beaucoup